bi ñu dénk wàllub tàggat yaram engagé na li nga xam ne moo di cadre juridique bu ñeel bépp activité bu soxal tàggat yaram Khady Diène gay jiite na li nga xam ne moo di atelier de partage avant projet bi nga xam ne moo ñeel saytu bi ñu war a indi ci tàggat yaram bu Sénégal. dañu fi daje pour waxtaanee li nga xamante ne moom la ñuy wax avant projet de loi portant code du sport ñu tuddee ko la loi sur les activités physiques et loi bi nara. tënk la li nga xamante ne lu jëm ci la pratique sportive fii nii ci Sénégal. processus bi nag bi ñu ko tàmbalee ak léegi ëpp na fukki at ndaje bi nag dafa bokk ci wéyal activité yi nga xam ne tàmbali nañ ko ngir indi ay coppite ci secteur boobu nga xam ne bëri na ay mutation foog te ñu indi ay coppite ci yoon bi nga xamante ne mboolem acteur du secteur du sport ci la tënku pour doxal wàllam pour doxal liggéeyam. 2013 tàmbali woon na waaye yeggut woon ñun tamit ba ñu xamante ne dënk nañu lenge yi teg ñu ci kaw boppu département des sports bi ñu daal di koy jël ñun action bi nii duggoo ko ci suñu plan d'action sectoriel. liñ ci jublu nag moo di fexe ba loi bu bees bi mën a méngoog jamono. boo jëlee aspect yu bëree bëri lu ci mel ni professionnalisation bi lu ci mel ni financement bi lu ci mel ni doppage bi digitalisation bi nga xamante ne. loolu kenn mënatu ko bàyyi gannaaw buñ fi génnee tey dinañu jël bu soobee yàlla document bi daal di koy synthétiser waat xoolaat ko relire ko avant ñuy àgg ca pencum ndaw réew mi ca assemblée nationale. bu ñu sukkandikoo ci Khady Diène Gaye loi 84 59 nga xam ne moo tënk lépp luy tàggat yaram fii ci Sénégal dafa rek wane ay limitam kon nag faaw ñu saytu ko mën na indi ay coppite ci texte yi nga xam ne moom mooy doxal tàggat yaram fii ci Sénégal.